أعوذ بالله من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وشرف ومجد على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi seetaan seen télévision ba ñu toujours visible ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen baalu xaq ñaan yàlla yàlla boole baal fa tabarakallahu tey ñu ngi fii si ëttu nitu yàlla di sëriñ maam Thierno Yoro Ndiaye fa tabarakallah si journée culturelle bi nga xamante ne ren def na trente-deuxième année ñuy féete bés boobu waaye nag tey yii di bésu alquranul karim ñu taxawaa kenn si ay njabootam di al oustaz Salam Mbeng di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko bàyyi mu nuyoo waaye si lu gàtt mu wax ñu ana kan mooy maam Thierno Yoro Ndiaye ak fan la jaar fa tabaarakallaahu ba mën a wesaare xam-xam ba mën a orienté ay jaam ñuy taxawal daara waaye di dimbali nit ñi si seen wàllu njub ak seen wàllu diine kon xaji salaam ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ ñu ngi lay fay bu baax awalan aussi di nuyu waa télé bi di leen jaajëfal si seen liggéey bu rafet bi ñuy def di nuyu aussi képp ku ñuy déglu xam naa comme ni nga ko waxee rek ak tënk lay doon mais. ku ku jàngale pendant soixante quatorze ans kooku bés euh, wax tënk tënk jaar jaaram day xaw a jafe ci ci ay maanaam du jafe sax maanaam ci ay minutes kon dañ koy dañ koy bëmbëstal rek xam naa ci gàttal euh, Thierno Yoro Ndiaye ñu gën ko xamee ci dàkkantal bu ñuy wax majhulul umma mooy ki nga xam ne euh, borom xamal boo xam ne nit ñi dañ ko réere loolu nag day am day am si jamono mm-hmm. saxaaba yi am na ñoo xam ne sax ñun xamuñu leen te ay kàngam la ñu woon loolu am moom nag si ñooñu la boobu si si Sénégal yàgg na bëri ay nit yàlla mais moom bokk na si yàlla yi nga xam ne nit ñi xamuñu ko loolu nag euh, destin am la noo la ko yàlla euh, cëralee mm-hmm. moom mu ngi mu ngi mu ngi dalee àdduna fële Rindiaw Rindiaw benn euh, village bu nekk boo Boosaya moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak El Hadji Omar boo xoolee ci suba lu bari yaatal nañ ko ci temam bi mais xam naa dañ koy tënk rek moom boo xoolee El Hadji Omar daan àndal parce moo yoroon wàllu communication El Hadji képp ku ko daan bind lettre bu la waree tontu moom lay wax moom mooy bind parce que dafa amoon euh, niveau ci arabe mën a bind moom moo daan bind daan def yooyu lépp loolu ak tënk la rek quoi moom loolu la loolu la yoroon ci wàllu armée bi ak plan de guerre bu ñu waree guerre ak yooyu noonu moom mooy def ne ñi ñu war a guerre de nii la ñu war a def pour man leen euh, dugal si l'islam ak yooyu noonu moom yàlla mayoon na ko loolu loolu moo nekkoon mission am ci euh, bi mu nekkee ci armée El léegi nag nee nañu nag wax xam nga histoire dafa bëri ay version nee nañu gaañ-gaañ moo ko indi woon Dakar pour mu fajusee xam def rek moo ñëwoon loolu moo ko andi woon fii Dakar léegi mu fi ñëwee Dakar na fekk kaadi yi fi nekkoon loon àtte benn masala ñoom bi ñu àttee pare moom mu def intervention ne lii de nii laa ko gisee nanga ma naan céréal yi la wax ki doon àtte jour boobu sax moom moo ne place bi ma toog nii góor gi moom ko gën a yeewoo parce que niveau bu muy waxee nii niveau bu kawe la moom aussi nag chance bi mu am mooy papaam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon université Pire les années mille six cent maanaam ba ba mille sept cent moom papaam borom la woon aussi souvent day yomb aussi mu am xam-xam kon ci tënk moom waa Fuuta la mais loolu moo ko andi woon Dakar nag bi mu ñëwee Dakar Dakar nag si la toogee nag lébu yi jël ko mu nekk fi nag ñu may ko fi soxna ba mu yor fi daara ñun nag si loolu si famille boobu la juddoo te alhamdulilah tey man loolu dama ko daan wax saa góor gi sëñ Mouhamadou Diouf ma ko man tax ma gëm ni El Maam Thierno Yoro Ndiaye borom xam-xam la parce que si kër gi laa gis boog ay borom xam-xam yoo xam ne mosu ñoo jàngi feeñ si kër gi rek maanaam loolu day tënk ne moom borom xam-xam la woon parce que borom xam-xam yi ma fekk ñoom mosu ñoo jàngi feeñ dañu lépp si kër gi lañ ko jàngee boobu moo lay wan ne moom borom xam-xam la woon man loolu laa amoon comme lay ne loolu rek day ne kéemtaan parce que man dinaa dem ci ay jotaay yu bari mais dañ may laaj sax fan laa jàngee te dama lay wax man mosuma génne fen lépp lu ma jàng suñu kër laa ko jàngee waaw loolu tam beneen firnde la quoi waaw lépp loo xam ne fiq la wala euh, bayaan la wala tafsirul quran wala naxu xeetu xam-xam yi nga xam ne yëpp borom xam daf ko soxla yëpp ci kër gi lañ ko jàngee fa la waaw wallahi lazim mosu mosuñoo jàngee beneen école lépp lépp sëriñ Mamadou moo ñu ko jàngal moom aussi bàyyam moo ko jàngal kon alhamdulilah loolu rek day wane ni góor gi ci ne beneen dimension bu mag la woon Sénégal aussi nag yàlla dafa defal tawfeex boobu ja jàggaani ñu xam-xam borom xam-xam daf yàgg na fi am loolu nag alhamdulilah moo tax nag chaque année nag ñuy def. di fàttaliku li mu daan def noonu lii nag mooy 32e édition si si mode bi mode bi mais depuis 1909. 1909. mag yi dañ daan daje fii ci kër gi di fàttaliku ni mu daan jàngal taalibe yëpp ñuy waxtaan jaar-jaaram mais mode bi la ñuy changé nag depuis depuis 1991 man année boobu laa juddoo. si lañu sañ ko commencé woon def di woo ay borom xam-xam ñëpp toog ñuy waxtaan ci ay thèmes bu boobu moom mais lañ koy fàttaliku chaque année ñaan jàng alxuraan ñaanal ko ak taalibe ñëpp ay jaar-jaar ak li mu def ci gàttal waaw daara ji ci noonu mais boo xoolee nag lii normalement boo ko doon calculer ëpp na téeméeri at. waaw mais nag moo bi nag moo tax ñu naan trente deuxième ay aywa ci gàttal. oustaz yaakaar naa li nga fi wax lu si bëri am na ñu ko umpale woon si góor googu fa tabaarakallaahu digganteem ak maam Cheikh Omar Foutiyou Tall waaye it euh, xam-xam ba mu yore woon baqaad yi ñoom ñëpp ñu nangul ko xam ne kat góor gi moo leen raw te loolu lépp. kooku euh, waa barñi la tabarakallahu moom mii di Abdou Salam rek ñu bare dañoo naw alquraanam nawit taxawaayam si diine te nee na mosul génn fenn jéggaane fenn xam-xam fii la ko jàngee si ëttu maamam fii la ko jàngee si ëttu ay baayam Baye Mour Diouf ñaan yàlla yan yàlla dolli njéggalam ak yërmandeem si barkante sallallahu alayhi wasallam kon daal Abdou Salam ñu ngi am mbégte lool xam naa daal ñu ngi lay bàyyi nga wax sa kàddu eh, yi nga xamante ne mooy kàddu tàggatoo ñaanal réew mi ak fii Sénégal toll ak nguur gu bees gi waaye ñaanal ñi nga xamante aussi eh, ak tabaski bi ñu jëm waaw am na ñoo xamante ne mbéngeen ñu si bëri amaguñu xar kon ñu bàyyi rek incha allah nga tàggatoo. ah alhamdulilah sañ Ndoye kon xam naa ñu ngi gërëm ñëpp premièrement waa télé bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaan yal na yàlla defal leen mu mubin yàlla jàppal leen parce que liggéey bi rafet na euh, nit moom amul lu dul liggéeyal ay moroomu nitam parce que nit ki nga xam ne mooy liggéeyal moroomu nitam rek kooku mooy seen sang Seydou Sassam loolu la wax Seydul xawmus xaadimuhum aywa macha allah kon li ñuy tàggatoo mooy yal na yàlla def si yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi comme ni nga ko waxee rek ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay tolof tolof yal yàlla génn leen ci ñëpp ñi nga xam ne si ñu ngi ci wérit yal na yàlla dolli leen wér yàlla yomb na yàlla yal na ko yàlla def ak euh, comme ni nga ko waxee nouvel gouvernement bi yal na yàlla nouveau gouvernement bi yal na yàlla aussi defal leen jàmm comme ni ñu amee yaakaar ba fal leen aussi yal na yàlla jàppale leen ba ñu teg réew mi fu kawee seen jortu loolu yàlla mën na ko yal na ko yàlla def in uridu islam mastataat wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkal wala unib asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tabaarakallahu ñu ngi nii nag si xadara maam Thierno Yoro Ndiaye tabaarakallahu si 32e édition journée culturelle bi ñu amee ko fii si Baye ñu ngi nag taxaw ak benn njabootam mu di al oustaz Ibou Thiam fa tabarakallahu di ko ziyaara di ko ndokkale si bés bi xam naa dañu koy jox gi mu nuyoo waaye mu wax ñu kan mooy maamam maam Thierno Yoro ak mission bi mu amee ak al ni mu ko tasaaree fa tabarakallahu ak ah, lu ko indi barñi ba mu sambo fi daara formé ñi mu formé kon oustaz ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz alhamdulillah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 nuyoo bi gën a teey bi gën a rafet te gën a jaadu ci ab jullit muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen baal àq te di leen baal wax di ñaan yàlla na borom bi subhaana taala boole ñu baal di leen ñaanal yàlla fay leen jéego bu ngeen teg rek ba yegg si fii mu defal leen ko ay yiw ci seen misaanul xasanat yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bés bii nag laaj ngeen ñu laaj boo xam ne defe naa laaj la boo xam ne bu ñuy xëyee ci suba ba léegi ci lañuy nekk di waxtaan muy maam Thierno Yoro mooy kan ak lan mooy liggéeyam ci kaw suuf ndax yàlla suñu borom sant daala dafa am ci ay mbindeefam ñoo xam ne daf leen tuddee rijaalullah muy ay góor yàlla yoo xam ne lu tax mu tuddee leen ko mooy dañoo jógoon xar seen tànk ci tasaare diine ak dundal diine maam Thierno nag mu ngi jóge woon ci dëkk bu ñuy woowee Rindiaw ci Fouta arrondissement Boosaya ci boo demee tey dafa nekk si Rosso Mauritanie àndoon ànd ak Cheikh Omar Foutiyou daal ñu àndoon ñoom ñaar di jihaad fi la ci yoonu yàlla yàlla def nag ba ñu jógee keroog Bandiagara ci Degembere mu amee woon fa benn blessure ci blessure boobu nag la ko Cheikh ne ko woon demal nga faju ji balaa ngay ñëwaat ci front bi ñu nekk mu dem ñëw di front faju fii ci Tëngéej ci këri suuf ci benn cousin bu tuddoon Ahmadou buso yàlla def ba mu fa ñëwee nag dëkk fa mu toog ak moom bés mu ne ko dañuy àtte ci tribunal Tëngéej ci cadre yi fa nekk dama bëgg ñu ànd ak yow ba mu demee ñu àtte ba pare laaj ndax amul ku ci mën a dolli ci gàttal rek mom mu di ëgg xalaatam ko si lañ waa euh, amoon benn chef de canton bu dëkkoon Bargny te doon maam Maysa Lay jiite woon canton ak Tëngéej si la ko gisee ak suñu maam euh, alxasan li ak kilifay Bargny yi fi nekkoon ne ko dañu bëgg jël la nga ànd ak ñun ñëw ñi boo ko defee nga gane suñu ba mu ñëwee ñi nag si lañ ko fi tee may ko fi soxna daggal ko fi kër fii ci Baye mu samp fi daara di jàngale mu ngi fi ñëw en 1834 euh, mais mu ngi génn fii àdduna en 1908 ci la gaañu 1834 la judd 1864 la ñëw ñi donc bi mu fi ñëw boobu 30 ans la mais mu ngi gaañu en 1908 fii ci ñi doonoon nag ab jàngalekat jàngalekat ab diine doon suñu maam Abdul Aziz Dabakh yal na yàlla yokk leeram dafa daan wax ne maam na Yoro ayatun min la daan wax ne ab ab mandarga la ci mandargay borom bi ndax koo xam ne la daan na tasaare diine daan tasaare xam-xam daan jàng ak jàngale yàlla def nag ba mu génnee àdduna ay sëtam nekkoon fi doon taxawele bés bii ku su mel suñu bàyyi Serigne Mamadou yàlla na ko yàlla yërëm ak waa daar ji fi nekk yëpp di ko taxawee ba tey jii nag ñu ngi ci muy continuer nii muy journée culturelle bi ñuy def donc loolu daal mooy li nga xam ne en résumé moom lañ mën a wax ci maam Thierno euh, di ko ñaanal itam yàlla yàlla yokk leeram bés bii nga xam ne ñu ngi koy taxawee te waa Bargny di ci def seen doole ak seen mën-mën yàlla na ko suñu borom yokk ndax sama papa daan wax ne wéeru fu dëgër moo gën wéeru bu dëgër nga laaj ko lu tax mu ni ma boo wéeroo wéeru bu dëgër mën ngaa mas li nga wéeru nga daanu waaye soo wéeroo fu dëgër ñi nga wéetu ñoom boo naree yegg suuf sax darañ jàpp say loxo ba doo daanu donc waa bar ñi ñooy wéeru waay kër gi te lii mooy ci kaw suuf ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnas taamuruna bil maaruf wa hau anil munkar wa tuminuna billah yàlla daf ñu ne yéen xeet bi gën neewu ñu ne yéen fi ëpp ay jàmbaar ñu ne yéen fi ëpp alal waaye daf nañu yene a gën ndax ñett ndax da ngeen am ngëm yàlla ba di digle lu baax di tere lu digle lu baax bi nag mu ngi tàmbalee ci def ko ñi ngi sa yow ci sa relation sociale bi ngay am ak ñi nga dëkkal après nag nga tàmbali ko ak ñi nga dëkkal ak environnement bi nga xam ne nga bokk ak ñëpp donc tey defe lu mel nii ko defee mu mën am jëmm ju mel wa waa Bargny ak yéen yéen am tahawai bu rafet boobu donc ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ñaanal yàlla fay leen te guddal seen fan te itam di leen wax ne itam taxawaay bi ngeen am rafet na ndax taxawaayu daara la te itam wax dëgg yàlla rafet nañ ko surtout yow Oustaz yow moom suñu soppe nga suñu nit nga suñu xarit nga donc yàlla na leen yàlla sàmm bu baax a baax a fay leen bu baax barakallahu al oustaz xam naa ñu ngi amaat contentement di am mbégte si kàddu yi nga xamante ne rotal na ko di kàddu yoo xamante ne it ay information yu leer ndañ lañu jox wax nañu si góor gi si lu gàtt waaye it wax nañu si lu am am solo loo xamante ne amaana moom mii xam na ci lu bari loo xam ne bu ko doon taawil fii duñ fi jox kon ba tax na góor googu na yàlla taf si barkeem yal na yàlla it xam loo ko waaw yal yàlla yal nañ ko yàlla xamloo ban it war nañ gën a yeewaat xam kooku ñu yàlla jox muy maam Thierno Yoro Ndiaye ndax tey bés bi war na mën a dépasser fii ba fa àdduna fa tabarakallah fu ay neex si àddina rek ñëw di teewee bés bi xam nitu yàlla bi ñu ko doon defee wax na ko léegi dafa am ñoo xamante ne ah ay góor yàlla leen tuddee te nag loolu am na kon al oustaz ñu ngi am mbégte loolu xam naa dañu lay jox rek nga ñaanal mbokk yi seetaan ak it ñi nga xamante ne ñoom ñëpp participé nañu si bi ak ñi nga xamante it fa tabarakallahu gis nga ne jàpp nañu si bés bi si biir ak ci biti waaw Oustaz alhamdulilah encore vraiment ñu ngi ñaanal waa Bargny yëpp comme ni ma ko waxee woon rek di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne Bargny suñu bàyyi Serigne Mamadou Diouf bu bàyyi Tafsir Diouf yàlla yàlla guddal fanam day wax ne lébu yi ni mu koy faral di waxee ñuy ree mu ne naaxam ca kam la ñëpp judduwaale ay sikkam donc kenn gënul kenn donc bu nit ñi wootee nit ñi fekk si la loolu li ko waral mooy mbaax la rek ak dëkkin bu rafet ak dëkkandoo ñun saa sallam daan wax ne jibril daawul digal dañ ci di ma dëggal ci dëkkandoo ba dama jàppoon ne sax man su ma génnee àdduna sama dëkkandoo daf may doon donc tey taxawaay bi nga am ak waa Bargny yëpp ñu ngi leen di wax ne ñun waa kër Maam Thierno amaana ñun ñooy njaboot ci deret waaye njaboot ci diine ak ci askan waa Bargny yëpp la donc alhamdulilah kontaan nañ bu baax di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal oustaz yow itam ñu ngi lay ñaanal taxawaay bi nga xam ne yaa ngi ko am ci diine ji ak ci daawa bi yàlla na la yàlla gën a sàmm gën la dëgëral gën a barkeel sa xam-xam BTV bi ngeen xam ne ñu ngay suivre bu baax nag di gis liggéey yu am solo yi ngeen def yal na ko yàlla fuul ba mu dem ba nekk tele yu mag ngeen bokk ci télé yi nga xam ne ñooy raw ci àdduna di tasaare kàddu yàlla gi ba ñëpp mën ci jot ndax loolu kat mooy li nga xam ne mooy war ab jule mooy jottali kàddu yàlla ndax borom xam am loolu la ko yàlla tàggee yarfa'illaahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat donc ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam te di ko jàngale di dimbali ñu ci jot yàlla dina dinaa leen yëkk ci ay daraja kon donc yàlla yàlla defal leen daraja yooyu ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñooy doon représentant suñu borom ci kaw suuf taxawee ay dëggam taxawee ay diinam in uridu illa al islaha mastataatum wa ma tawfihi illa billah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh